lépp lu jëm ci mbirum ndox ak tamit mbirum assainissement jëm ci mbirum hygiène ak tamit wàllu inondation yi dafa nekk li nga xamante ni sénégalais yi daal dañ koy faral di jànkonteel mu doon ay jafe-jafe waaye nag li ni mel dañoo seetlu ni xam-xam bi nga xamante ni tas côté xibaar war nañ ko ci mën a am ngir fexe tamit askan bi mën ko euh, comprendre daal lu ñu gis ni daal dafa des moo tax ak waxtaan bu yaatu sax la ñu ubbi tamit seeq ko ngir fexe gën a tàggat tas côté xibaar yi ñu gën a am xam ak tamit jumtukaay yi nga xamante ni da gën a permettre daal ñu am ay information jëm ci nan la ñuy def ba xeex li nga xamante ni moo di mbirum inondation ak lépp jëm ci mbirum ndox ak tamit li mbirum assainissement waxtaan bi nag dina tax lii a comprendre ak tamit am information yi nga xamante ni war na lépp jëm ci mbirum assainissement bi nga xamante bés bu yàlla sax ak askan daal da koy soxla ndaxte danoo seetlu jamono yi mbirum inondation ak tamit lépp jëm ci mbirum assainissement dafa nekk li nga xamante ni dafa soxal askan bi mbirum inondation nañu seetlu daal Sénégal da koy gën a di dund da koy gën daal di am moo tax tamit mbirum inondation ak mbirum ndox ak lépp jëm ci mbirum assainissement mu nekk li nga xamante ne daal daañ ko saafaral une fois pour toutes euh, ci Sénégal waaw lii dinañ si dinañ ci def dara parce que inondation moom dañoo bëgg ñun cadre bi taxaw ni dootu ñu ci waxatu rek ay période inondation maanaam euh, août septembre octobre rek ñu ci wax inondation inondation ñun dañoo bëgg di ci waxtaan di ci joxe xalaat waaw di ci taxaw tamit lu doxut ñu dem saytu ko wala ne ah lii de yéen waxoon ngeen ko waroon ngeen ko def nu mel déjà rek benn euh, député yi defoon nañ ko euh, bon euh, dem saytu li nga xam ni mooy lu dox ak lu doxut ba ñu jébbal ko ki nga xam ne moo di njiitu réew mi loolu sax dinañ servir de référence ñu xool li nga xam ne war nañ koo def ñu si lu ñu def ñu ne ay ca lu ñu deful nag ñu pousser leen ci à travers tamit suñu liggéey ak suñu war a mën a def yëpp pour tamit loolee ñu mën see jël ay dogal ngir rek bien-être askan bi. président demee foofu la jëkk joxe directive comme quoi nañu démarrer waat la phase de du du projet. et loolu ADM mi ngi ciy def liggéey bu mat sëkk boobu ba léegi en rapport avec le ministère de l'eau et de l'assainissement et je pense que ni du am nañu yéene def lépp lu ñu mën ba jafe-jafe yi nga xamee ne moo fa amoon bañ faa am en titre conservatoire en attendant ñuy àgg ci solution définitive yi parce que nag euh, liggéeyu inondation dëgg la at déjà ñu ngi ci inondation parce que janvier dugg na ça veut dire que donc mënuñu wax ne daa ñu pare avant avant nawet bi ñëw mais xam nañu ne état bi jël na mesure yi mu war a jël pour que mu nga xam ne du metti na mu méttee woon daaw et ñu àggal liggéey bi ba ni mu ni ñu ko liggéeyee tey ci beneen parti Kër Massar bi maanaam parti Kër Massar bassin versant Mbeubeuss tey ku dem foofu di nga gis jumtukaay yu mag yi fa état état def ku dem Curuur di nga gis jumtukaay yu mag yi fa état def ku dem naan ku dem Médina gason ku dem Médina Gazon Médina Gounass yooyu ñu def ci dëkk yooyu yooyu lañ am yéen indi ko Kër Massar ak feneen fu mel ne Kër Massar ci Sénégal. ñu xam aussi que euh, depuis que le problème des pluies est revenu au Sénégal entre ci ba 2000 où cycle pluviométrique bi dafa maat y' a eu énormément de énormément et y' plusieurs plans mais en on a am nañu ce qu'on appelle le plan décennal de lutte contre les et dans sa phase urgente en 2013 may nañu ñu mën a régler problèmes yu bëri bëri bëri que boo xoolee. ci euh, ci route nationale bi da daan dagg ba euh, benn oto mënu fa jaax maris boo demee fii euh, maris ñaari laaj yi da daan déborder ba dugg ci kër yi boo demee wasu faax fi vraiment am na fa ay yu bari bari bari bari boo leen xoolee am na population yu bari yu ñu déplacé woon ba indi leen au niveau maintenant de la fois mais depuis que plan boobu ñu def ko en ñu met ko en œuvre en 2013 ci sa phase urgente en 2014 2016 ci phase moyen terme bi ak 2017 2018 ci phase ci phase court bi am na évolution yu bari yoo xam ne am na fi parce que infrastructure yi xam ne def nañ ko moo ñu permettre ñu xam ne am na zone yu bari yoo xam ne léegi boo fa jàll léegi dootoo fa dégg problème ndaam naam euh, des na mais au moins loolu ma ñu def permettre ñu vraiment ñu mun a maîtriser euh, taw bi maintenant ci yenn zone yi maintenant l'autre information mooy la bonne sens la bonne information que les populations yi ñoom la war a xam naka la war a a pas mieux que pour joxe cette information là. mbirum assainissement solo gi mu am tax na si nga xamante moo di service yu nekk fële sa ministère de l'eau de l'assainissement daal ñoom tamit euh, dégg profité nañ ci daal ngir wax seen politique ak tamit jumtukaay yi nga xamante ne ñu ngi koy euh, def tamit ngir fexe euh, saafara lépp jëm ci mbirum inondation ñoom sax peut taxlu nañu tamit ci boobile ndaje tamit ngir dégager seen programme ak tamit li nga xamante moo di seen ay jëf yu ñu def ngir tamit Sénégal ci ay jafe-jafe yu ñu nemmeeku jamono yëpp jëm ci na permettre daal mbirum assainissement ak mbirum inondation gën a jëm kanam fii ci Sénégal bu nu sukkandikoo si ñi nga xamante ni ñoo fa teewal direction de l' mooy gis nañ ni ak changement euh, climatique bi ak phénomène yi ci am yëpp bon ñoo ngi koy dudd bis bu ne euh, te gis nañ ni loolu tamit euh, ñun tamit war nañ ci jouer suñu rôle en tant que journaliste gis nañ ni tamit ñi ngànk maanaam mbir mi tey ko war koo doxal. ñoo ngi adapté wu peut-être si si si si mbir mi euh, ci phénomène boobu waaye tamit léeg-léeg day desandi gis nañu tamit ñun suñu taxawaay en tant que si lañ toogee xalaat di xalaat bu baax ne tamit di gis tamit suñu yenn rakk ak tamit ñun ñi sax suñu biir ni li nga xam ne mooy euh, lii nguur gi yor wala ñii ñu ko yëkkati war ko jëmale si askan bi war nañ ko gën a xoolaat saytu ko tamit ñu am une bonne information des fois dafay métti sax léeg-léeg pour nga am une bonne information donc bu jógee ci ñoom moo tax tamit ñu créé cadre bi pour que ñoom tamit ñuy xibaar de façon responsable si seeni i rôle ak seen i responsabilité ci yi nga xam ni moom lañ leen dénk moo jëm ci wàllu euh, hygiène bi ndaxte moo jëm tamit ci wàllu euh, lii di eau et assainissement mooy question wasi yëpp ndaxte gis nañ ni jamono ji jafe la ci wàllu mbedd yi nu mu salté jafe-jafe tamit euh, ci maam sax su nekkee ñoo ngi ci dafay effort jafe-jafe tamit ci wàllu gestion inondation te te tamit ñuy wax inondation rek en période hivernale nga gis rajo yeeg ñun ñëpp ñun ñëpp ñu taxaw ci focaliser aussi mais ñun dafa war a nekk loo xam tamit dañ ko war di wax tout le temps di ci tamit gëstu di ci def ay liggéey bu am mucc ayib pour que nag ñi nga xam ne ñooy décideurs yi ñuy gaaw ci décision ñuy jël pour rek li nga xam ne moo jëm ci euh, fànn woowu ñu mën koo respecter pour rek li nga xam tamit moo di bien-être bi ñu mën koo gën a mën a taxawal. action euh, Mamadou Alpha Sidibé jiite ko ak euh, ci turu ministre de l'eau et de ñun ñëpp moo doon Alpha dana fi teew ñu am mbégte di teew di ak yéen li nga xam ne moom la ministère bi tënk ci wàllu xeex mbënd. ndax ministère bi bu leen euh, direction bi nga xam ne ñun euh, Alpha Sidibé moo ko jiite dafa nekkoon fu ñuy wax euh, ci ministère de l'urbanisme mais ci gis-gisu président mu jàpp ne wàllu ndox dañu war a boole lépp képp kuy yëngutu ci ci ndox pour ñu mën leen a boole benn kuréel nga xam ne ñooy bokk di xàccandoo di dóorandoo pour ñu mën a am njariñ loolu moo nu jëlee urbanisme indi ñu ci ministère de l'eau et de l'assainissement suñu kilifa jox ñu ci ay ay dogal ak ay ay ay matuwaay yu am solo matuwaay boobu bi si jëkk mooy bi nga xam ne taxawal na ko ak bailleur de fonds yi muy ce qu'on appelle le projet de gestion intégrée des inondations ndax ci ndigalu kilifa gi projet boobu bu ñu ko defaree pare dañu gis ne 2005 ba léegi état mi ngi def lu baree bare mais ba léegi dafa des la des nag dafa fekk li ñuy wax ne connaissance du risque moo des maanaam euh, xamaguñu bu baax a baax a baax a baax euh, jafe-jafe bi fu mu nekk loolu moo tax ñu dugal ci lu cartographie réew mi yëpp réew mi yëpp la ñuy cartographier mais bu ñu cartographier réew mi yëpp ba pare am nañ ci ay dëkk yi nga xam ne ñun du ñun ñoo koy wax parce que am tey mënoon naa tëbale ne dëkk bii bii si la bokk mais dañu bëgg xam-xam boobu ñuy teg ñuy wax ko modèle numérique de tere mu ne ñu Sénégal fukki dëkk la ak ñeent mais juróom-benni dëkk yi ñoo gën a sonn ci wàllu inondation su boobaa ñu ne ah kon comme juróom-benni dëkk yi ñoo gën a sonn ci inondation gëstuwaatal ñu bu baax a baax a baax a baax ñu xam. ndox yi fan lay jóge fan la jëm lu tax muy mu am problème est-ce que ndoxu suuf la est-ce ndoxu taw la est-ce ndoxu dex la est-ce que est-ce que est-ce que est bu ñu paree ci loolu pare nag ñu daal ci tëgg ak lu ñuy wax wàllu yéene communication communication boobu dafay permettre préfet bi nekk ci dëkk boobu maire bi nekk ci dëkk boobu xam ni fii du dëkkuwaay ndax nab place su nab la walla boog ndox mi bu dawee fële fii lay jëm si buñ ko xamee noonu ba pare. kenn du fa def ay dëkkuwaay parce que li ñu amal solo mooy fa ñu jëm ëllëg ba nga xamee ne kenn dutul dëkk ci dëkkuwaayu ndox ci préfet bi ak maire bi jógee foofu daa daañu fexe mu am communication de masse maanaam waa dëkk ba seen bopp xam ne fii te loolu ñun ñu ngi koy dund tey am na fi nga xam ne boo demee dañ naan la fii ay dex la woon fii ay déeg la woon loolu nag lu ñu bëgg aujourd'hui mettre cette communication la à la porte des population nga xam ne ci sa portable si sa portable mën nga toog xam ne ah ndekete fii dex la woon en 1947 su boobaa xëy na yow dootoo jënd dootoo jënd doo fa bëggoon jënd kër dootoo jënd kër donc loolu la ñuy wax communication de masse et loolu dañ leen ci ñaax di leen ci sant parce que ñun ak yéen ñoo koy ànd def bu soobee Rab bi gannaaw connaissance du risque boobu ñu ngi àndook suñu ay yeneen nattangoo muy ANACIM muy ONAS muy DGPRE pour que kenn ku nekk ñu jox la ay jumtuwaay yu mat sëkk sëkk sëkk sëkk ba nga xam ne. comme ONAS ni ko si Pedre waxee léegi boo toogee fii Dakar nga xam la xew Kër Niang à Touba wala nga xew la la la nga xam la xew ak Kaffrine vraiment loolu yaakaar nañ ne jumtuwaay la bu leen permettre ñu mën a def seen liggéey ci nu mu rafetee. taskatu xibaar yi tamit kenn demul mu des ndaxte ñoom tamit daje bi buñ si jógee daa ci am xam-xam am tamit information. am tamit li nga xamante moo di a mën a comprendre li nga xamante ni moo jëm ci mbirum inondation ak tamit ci mbirum ndox meeg rawatina wàllu ko assainissement moo tax la ndax tamit dina tax li nga xamante moo di askan bi information ak tamit xibaar yi nga xamante moo di war nañu ko mën a am par rapport ak politique bi nga xam ne état bi mi koy dégager jëm ci fànn boobu mu gën a mën a ñoŋ. dañu gis émission yi daanaka suñu télé yi suñu média yi bon on fait pas de jugement nag sérieusement te moom ñu rajo yi moom ñu télé yi ay employé lañ si waaye ñun suñu cadre bi dina tax taxaw gis kilifa yi waxtaan leen ne leen ñun dañoo war a am ay desk jëm ci fànn woowu ndaxte lu ñuy dund bis bu ne c'est vrai que ñoo ngi traité la question mais ñu gën ko approfondir gannaaw nag ba ñu euh, tàggatee ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi ci bokk tàggat leen ci question yooyu maanaam la mooy hygiène xam nga la mooy euh, hygiène bi tamit lan lay euh, si lan la jëm la mooy tamit li nga xam ne moo di eau assainissement yooyu yëpp ñoom bu ñu ko maîtriser dinañ mën a taxaw di ci def ay waxtaan jëmale ko ci askan mi ndaxte tamit li ñuy wax ci wàllu développement durable foofu la war a jógee te ñun tamit war nañ see jouer suñu rôle en tant que tamit euh, euh, professionnel des médias kuréel bi nga xamante ni tamit moom moo di ONAS nekk kuréel tamit bi nga xamante ni bokk na tamit ci boobile ndaje ñoom tamit nee na ñu noppi nañu daal ngir fexe partenariat bu dox diggante taskati xibaar yi ak tamit l'assainissement ñoom tamit daan ci def seen kéemtalaay kàttal rek bu ko defee li nga xamante ni moom moo di askan bi rek moo ci mën a gañee ndaje boobu tamit bu fa jógee am li nga xamante ni moo di lu ñu fa xaatim daal loolu dina mën a tax ki nga xamante ni yaa ngi si rédaction du wàllu journalisme tamit dina permettre a amal beneen aperçu beneen image par rapport li nga xamante ni moo di mbirum assainissement ak

bu bailleur bëggee financé wala bu état bëgg financé dina ne ah zone bii de étude yi ñu ci def daal lii la ñu wax ni bel type d'ouvrage la fa war def maintenant pour pouvoir régler kii loolu aussi je pense que ñu ko à niveau c'est important pour nga xam ne état mi liggéey am na lu mu def teg maintenant nag euh, euh, li xam ne maintenant moo ci des mooy ce qu'on appelle la gestion intégrée il faut que acteurs yëpp yi xam ne ñoo bokk liggéey bi ñu ànd parce que boo xoolee buy taw ci caniveau yi suuf di nga fa gis salte di nga xoolee quatre vingt pour cent yëpp ay suuf ak salte la bu UCG defee li moo def ñu désensabler les voiries yi ñun ONAS li ñu war a def du bari donc bu ñu entretenir suñu ouvrage je pense que dinañ mën a préserver euh, population yi maintenant des inondations loolu yëpp je pense que buñ ko tey buñ ci buñ ci xaymaa buñ ci waxee di nga ne dina mun permettre ngeen dem et en plus ça aussi je pense que bu ñu am fii rek il faut aussi aspect euh, euh, formation bi boo leen jógee fii ngeen xool avec acteurs yi xam ne ñu fi nekk yëpp ñu ñu mën a continuer cet aspect le réseau pour que xam ne vraiment état bi voilà li état bi bëgg a def et ban la impact ba impact la a am maintenant euh, ci population yi. ndaje bi nga xam ne ubbi na ci Ndakaaru dina am solo loolu sax si li nga xamante moo di différentes rédactions yu nekk fii ci Sénégal ndax dina tax nu jël pàcc bu am solo jagleel ko mbirum assainissement ak tamit mbirum inondation rek boo ko defee tamit askan bi tamit gën a mën a jot xibaar yi ak tamit am ay xibaar yu wër te jëm ci li nga xamante ne politique bu nguurug Sénégal di dégager ñeel mbirum assainissement ak tamit li nga xamante moo di mbirum ndox ak tamit mbirum inondation bu ko defee daal jafe yu ci mën a am bu mën a pour toutes